seetlu nañ ne y a deux mois ñiy dee ci coronavirus am benn âge wu soixante-dix an jëm kaw xaw na xaw na takku lool donc je pense que loolu docteur yi ak état bi war nañ mën a def benn gëstu xool ndax nit ñi ñu ngi respecté mesures barrières yi wala déet parce que en général mag ñi duñu génn mais xale yi ñooy génn indil leen ko. bu continuer nii mag du des ci dëkk bi soxna si mag du des ci dëkk bi wax nañ ne maladie bi mag la gën a yab xale bu respecté wul euh, geste barrière yi wal ko mag dèjà mag yi dañuy jeex te buñ jeexee ñun fan la ñuy jëm. dèjà ñu suñ koñ bi amatul mag xam nga métti na topp parce que donc du mën a ñàkk ma si mbokk parce que am naa mbokk bu ma si ñàkk. mag moom da di lu dugg ci moom dafa yomb waaw waaye dimal ko it baax na waaye yàlla mi nga xam ne moo ko def moom mën naa dimal ñëpp ku ci war dem doo ci dem. waaye ku ku ci ne rek nga yor saw fit te weeru ci sunu boroom mi nga xam ne moo ñu yor yàlla moom ku mu binde dara mu naan laa yóbbu te lay yóbbu mënoo si dara. boo gëmee yàlla yéen doo ko tiit mais ku tiit daa gumul yàlla xam ne bi ngay ñëw fii munoo dara lépp yàlla kon ku yàlla indee feebar di nga jàpp yàlla rek la moo ko mun a yóbbu moo ko mun a dellu lépp mu dem yoonam. gis naa ne nit ñi mesure barrière yi ñu si bari respecté tuñ ko. comprendre na communication bi état bi di def sax ñu bëri déglootuñu ko parce que ñoom dafa mel ni corona bi amul quoi corona bi jeex na pour ñoom or ko corona bi mu fi ba léegi donc euh, mooy li ma lay wax rek c'est-à-dire communication dafa am solo am na benn façon communication boo xam ne boo ko defee rek nit ñi dañuy yaakaar ne foofu la affaire bi donc état bi moo njëkk a fayir si loolu parce que communication bi ñu def ne il faut vivre avec le virus loolu moo indi problème bi nii actuellement sénégalais dafa dëgër bopp Sénégal kenn doon naka il faut vivre avec le virus da ngay continuer teg say mesures barrières di ko accompagner. coronavirus lu am la état bi def na lu mën médecins yi ñu ngi góor góorgóorlu am nañu ay médecins yu xarañ ñu ngi ciy góorgóorlu def seen képp lay kàttan ñun nag ñoo ci des ñun ñoo war a changer ñu comportement yi soxna si. nañu respecter geste barrières yi di raxas loxo yi te continuer waat nañu doon def dëkk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole fuuf ëpp ñu ay moyens gis nañ ni coronavirus di leen. di leen éliminer sakamte nag ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci pays boo xam ne développé wut amuñu ay moyens. man daal sama contribution mooy état bi donc gën a gën a indiwaat rigueur si si si si affaire bi pour ñëpp takk masque ñëpp respecter mesures barrières yi.